mbokki internet chronoactu daal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak doxu ñaxtu bu coordination bu parti démocratique sénégalais bu Guédiawaye doon amal ni ki tey jile ngir sàkku ñibbi siwaat Karim Wade ci biir réew mi ñoom nag ne nañu jot na ngir Karim moome président Macky Sall mi ñu jiñ ne moo ko fa daal di téye mu ñibbi siwaat ci Sénégal bu ko mooyee nag dañuy gën a baral seen biir xeex doxu ñaxtu ba nag des koy jëlee ci banlieue bu Ndakaaru daal di koy wëyal teewlu ñenn si ñoom. Macky Sall moo fi génne Karim Wade xaaju guddi na seet bu muy def ba delloo suñu ko parce que ko soxla dañu soxla Karim Wade. Macky dictateur la libéré Karim Wade libéré Karim Meïssa Wade Macky Sall bàyyi Karim Wade sonn nañu bàyyi Karim Wade. c'est important xale yu baax bëgg Karim Wade lañ donc suñu wootee ñëpp ñoo ñëw c'est ça la jeunesse parti démocratique pratique sénégalais c'est très normal aussi Karim dafa war a ñëw Macky dafa war a Karim mu ñëw wax nañ dëgg ah loolu rek lañ mën a wax ñun ñëpp ah, parce que comme moom moo ko yóbbu woon kon moo ko téye Macky on en a marre dañu yow xale day ñëw mu neex la day ñëw mu naqari la day ñëw mënoo dara Karim Wade mënoo toog bàyyam def la li nga doon yëpp ba nga président tey nga di ko toroxal un vieux de 96 ans c'est malhonnête de sa par force sous degré. La jeunesse est là, nous demandons et nous exigeons le retour de Karim Meïssa Wade le plus rapidement moo ko soxla Sénégal moo soxla Karim Wade mu génn Sénégalais ci coono yii benn candidat lañ gis ñu jël ko exilé ko yeneen parti yëpp ñu am seen candidat bu yàgg ba léegi Karim Meïssa Wade lañ tee exilé ko te teguñu ko fenn su dul injustice. Nous demandons nag le retour de Karim Meïssa Wade sans condition et sa réhabilitation de tous ses ne ko defee ak intérêt boppam waaye nag xam ne bu fayoon naar bu xoromam def di ko def lépp la tuuru dañoo muñ ba suñu muñu kaay jeex na na may Karim Wade mu ñibbi si Sénégal gii liggéey ni ay moromam li mu def nag kenn defalu ko koon Macky Sall lépp moom la li ci njàgg mooy njàgg mais allez am na retour li italien yi na américain yi naan comeback président Macky Sall na bàyyi Karim Meïssa Wade bu ñëw dañ koo soxla parce que bu ñu jógee si lii dañuy def vitesse supérieure lii mooy première pas bu teg deuxième bi dañuy jubal soxla si réew ñi parce que leader ngi suñu leader nekku fi au moins suñu leader am fi liggéey moo liggéey VDN bi moo liggéey pont yi moo liggéey Soumbédioune moo fi andi Tata yi moo fi andi Elton tous les grands travaux du président Abdoulaye Wade président Karim la kon na bàyyi jaaru mu ñëw si réew ñi desandi ci wàllum politique ak président Macky Sall jëmale ko nag ci élection législative yu ñuy dégmal ni ki barki dëmb ci alarba gi mu daal di dalal ci palais de la république ci ab audience ay responsable apéris ya ci Kër Massar daal di dal ci seen toroxal leen jëmale ko nag ci xiroog ngaayo bi ñu dëkkee moom président Macky Sall sax dem na ba di leen di xamal ni seen boobule xiiroog euh, ŋaayoo euh, bi ñu nekkee kon foofu foofule ci Kër Massar euh, bu ñu xullee ba ci fanweeri fan ak benn ci yorum sulet ci législative yi ñu gàññewaat leen ci diwaan bu Kër Massar nañu xam ni waxul sax ceeb waaye xooñ sax duñ ci jot dootu leen séddati ci lenn ci yooyu la élection législative ba léegi la ñuy desandi ak honorable député bile di Marème Soda Ndiaye mi nga xamante ni ab ndaw la mi ràññeetlu lool ci bile législature moom moomee nag daal nay jël dogal coalition aar Sénégal Abdourahmane Diouf mi bokk ci boobule coalition moo ko daal di siiwal niki tey jile ci ajjuma mbiru Dubaï porte poti bi nag kii di Moustapha Diakhaté daal dina ci addu ancien parlementaire bi di xamle ni Sénégal lim ci war a def kay moo di ci daar daar ministère bu ñu dënk wàllum affaires étrangères dafa war a wóolu si ambassadeur bu Émirats arabes unis fii ci senegal ngir ñu xam ñan ñoo laale ci boobule scandale rax dolli itam dafa jàpp ne kon doomu Sénégal ñu tudd ñi nguur gi moo war a taxaw temb ngir delloowaat leen ci Sénégal bu fekkente ne bëgg nañu ñibbisiwaat ndar keppe ko fale ci Casamance ni kii tey ji itam ay nit ñu ngannaayu ci suba teel daal di nañuy karaat ay woto ci diwaanu Bignona rawat na nag ci dëkk bu ñu wax catégorie ginnaaw bu ñu fa kare benn woto lépp li nga xamante ne ab moomeel la daal nañ koy nangu ci ñoom ci la larme gi daal di yegsi si waaye nag ñooñu nga xamante ne dañoo ngannaayu mujj ñu leen identifier ba xam ndaxam ñu bopp ci way fippuy Casamance yi la am déet ci fàttali braquage yi di maanaam kar yi daal nañuy bari lool ci boobule diwaan ginnaaw bu larme bu Sénégal Sénégal tàmbale di dal ci kaw Salif Sadio ak ñi mu àndal ci bëtu gànnaaru Sindia mbokki internet chrono actu lii lañ leen ci xibaar ni ki tey jile dig daje ëllëg la doon incha allah si gën a jotaay xibaar jàmm ak